di leen siyaar sàkk seen bopp ñu ngi taxaw ak nag doom day was jàmbaar ñu ngi leen ma leen di fay ni ngeen def naka liggéey bi ñu ngi lay siyaar di ko ci yow di wax nag was jàmbaar am bésam le douze te xam naa ne was ko xam-xam la xam na yow doomu ndey ba yàgg baaki baaki baaki ma xam nga xam ci ak ñaan bis bi xam naa dina dina dina am eh, ay excitement yu bëri vraiment naa gis naa yi ak seen caravane bi yëpp vraiment euh, waa maris ak euh, waa talifor tout le monde ñu ngi ci ginnaawam man man aussi maa ngi ci ginnaawam quoi lépp li nga xam ne vraiment moom la soxla lépp li nga xam ne moo laaj ci bis bi nañ ko def incha allahu rabi te incha allahu rabi wóor dina daan dina daan ñaanal nañ ko ko te yàlla na ko def incha allahu rabi noo gisee wóor jàmbaar euh, man bi ma nekkee personal trainer xam naa mun ma ko wax ci anglais ci sapeur-pompier français nekk naa préparateur physique te donc man j'ai fait 20 ans dans l'armée aux États-Unis te donc xam naa ko am na yu bëri nga xam ne dañu waxtaan ak moom am na yenn ay tactiques d'entraînement yi nga xam ne vraiment wax naa ko ko won naa ko ko won naa ko li mu war a def quoi so donc et puis euh, vraiment ñu ngi ci loolu te chaque fois suñ ko waxee benn affaire vraiment bu ko defee man damay ñëw bu ñëwee ci man encore damay gis euh, résultat yi quoi so donc gis naa ko natt naa dooleem gis naa entraînement am nekk naa ak moom so vraiment gis naa ni kii mbër mënu ko daan bu fekkee euh, maanaam kii la rek ah, mbër mu mënu ko daan ko booy bu am doole la et puis macha allah so donc lii ma gis nii muy jëm. man gëm naa ni kii dina dina jóge ci lii quoi vraiment dina daan dana daan ko léegi looy wax waa yaraax mobilisation bi lu leen di wax waa yaraax li ma leen di wax rek mooy seen mbër moo ngay génn vraiment di ya, dem di eh, dem bëri na tout le monde ñëpp nañ nekk ci ginnaaw vraiment appuyer ko vraiment mu dem te su demee dafay daan donc loolu laay demandé à tout le monde quoi ñëpp dem su bés ba ñëpp def mobilisation générale ñëw fekk ko vraiment ni ku baax la amul ben problème so vraiment moom yaraax moo ko ñëwal quoi kon donc ñun ñëpp war na ñëw booloo nekk benn ñu ànd ak moom dem ci lamb gi vraiment mu daan ñu ñibbi suñu indi suñu contentement quoi te jour bu muy daanu suba fête bi fii lañ koy defee fête bi fii lañ koy defee plaquem waay so donc ay artistes lépp dañ leen woo incha allah nañu préparé loolu te man gëm naa ne loolu dina am ko donc fête bi dina am fii quoi ñun ñu ngi si ñu ngi sant di la gërëm di rafetlu sa taxawaay. koy sant di leen di yëpp yéen ñëpp leen sant. waaw bu defee nii wareefam rek la def. parce que ñun ñëpp ay doomu Yaraax. te nit ki même ci li ko tenee rek ci li ko mën a jàppale. moom daanaka mbër la. ci lutte la yëngu. donc lu mën a def mooy jàppale ko. parce que ndamam si ndam la ñun ñëpp. avancement bi suñu la ñun ñëpp. nag kanam yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd nekk nag ku fi nekk na nga mën rek na ko ci def yàlla avance bi ñu am mën ba mu doon roi des arènes incha allah bu soobee yàlla jërëjëf yéen ñëpp maa da a sonn nag ba léegi yéen a ngi wër a wax ci bu mën a gudd mais lu a ñàkk faaw moo am di leen jaajëfal yéen ñu topp ci ginnaaw wës yëpp di leen jaajëfal góor ak jigéen mag ak ndaw di jaajëfal wës tamit ci xalaat bu rafet bii mu am yéen ngeen bokk yéen ñëpp mbokk xarit ak waa dëkk bi yëpp. bëgg naa ci ñëpp Sidi kontaan na ci ñëpp li ngeen kontaanee ci Sidi Sidi kontaan na ci na ci yéen. raw loolu. Sidi nag dafa def li ko war rek. parce que mënoo juddoo ci dëkk. yaroo fa. màggee fa dëkk bi di soxla. nga mën ci dara tey sa bopp. loolu du gor. loolu du wàllu nit ku baax. nit ku baax da def comme Sidi baax ni muy def. lépp loo xamante ni nii yàlla dogal na mën nga ci dara ci looy war a wax wala ngay làmb sa poos wala nga mën a jóg dox nga dox ko nga wax ko wala génne def ci sa alal li mu bëgg a mooy bu lii bëgg nañ bu baax a baax a baax a baax vraiment nañ bu baax yàlla na sa jàmm yàgg